dama dama ko ndaw yi muy indi gi na wax leen ko mu arrêté xajuma ci moom. non non non je fexe le pas parce que yónnee naa naa chef de quartier. fii laa juddoo yan ñaan ma yar. am na lu mu dul seetaan am na lu mu dul nangu. Tafa Sylla wax leen ko. du ma moromam du man ak moom. wax leen ko bu beneen yoonee su fi juume ba dugal fi ay nit ma waat ko ma waat ko une fois de plus dina mere ko ko deful dara. parce que dafa am lu ma dul nangu non je m'excuse parce que dangeen am dëj su ma wàccuwaay fii tamit maa su ma taxawaay sax wax na noonu Barthé wax ay kàddoom wax na ay kàddoom ci mi ngi noonu ma ngay dox ànd ay moka moom Barthélemy ma ngay dox Barthélemy tantôt mu njool tantôt mu gàtt vous voyez c'est Barthélemy mi ngi doon wax li nga xamante ni moom moo ko metti Barthélemy ngi noonu moom ngeen doon dégg muy wax Barthélemy est escorté mu ngi noonu teggi nañ barrière yi nga xamante ni moom lañ tegoon. fee teree dox sens interdit munu ko fee am fii la juddoo Barthélemy Diaz doomu Jean Paul Diaz biir Baobab bii la juddoo rue bu ko neex lay jaar kan munu ko fee tere kenn ko tracer fu muy jaar voilà. dégg ko. dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni moom lañ njëkkati yi boy jënun kondi Barthélemy li mu wax leer na non non maire. dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni moom la yëkkati. gaa yi dañ kenn ñëw fii ci kanam ci kanam ci kanam ma ngay yéegaat ci otoom ma ngay dellu ma ngay yéegaat ci otoom ma ngay dellu moom Bart ak ñi mu àndal ña ngay yéegaat seen oto Bart ak ñi mu àndal yéegaat nañu